yàlla moo gën gu nit way làkk yu Mauritanie yu nekk fii ci Sénégal nag bëgg porox ndoll ci demum président de la République ca Mauritanie ngir ñu daal di fësal seeni bëgg-bëgg dafa nekk euh, problème bi nga xam ne dafa basé su ak ak yelleefu doomi aadama ko président Diomaye fay ak Ghazouani nañu delloowaat si dossier bi ñu tegaat ko si table bi pour ñu mën a régler problème daw làkku Mauritanie yi ñu nekk ay junni junni ñu bàyyeekoo ca Mauritanie ñi nga xamante ni nag événement naar bi amoon 1989 ba léegi nag ñu bari daal di nekk ci guuta ñetti junni doomi aadama ñu ngi fi eh, xamuñu fu ñu teg seen tànk amuñu santé amuñu logement eh, seen doom yi sax dematuñu école ñàkkum wàccoog accord bi doxoon diggante Mauritanie Sénégal ak Haut Commissariat des Nations Unies moo tax ñett ñoo jël lu ëpp benn jotuñu seen kayit buy firnde ñi ci dëkk bi lañ daal di bàyyeekoo wala sax mu daal di fës seen i dundin. boo delloowaatee un mois après formulaire bi nga remplir mooy formulaire de euh, rapatriement volontaire donc diggante ñaar état yi pour ñoom ci un Mauritanien. boo delloowaatee rek dañuy war a jox sa sa sa sa sa sa sa kayit sa pièce d'identité. li président de la république Bassirou Diomaye fay daal di nekk ci nguur gi fii ci Sénégal nag waral lël bi ëmb way làq yu bàyyeekoo Mauritanie yu nekk fii ci Sénégal nag am yaakaar ni lu bari dina ci daal di soppeeku. sénégal yi ñoo jóg jóg xeex ba ñu am fii beneen régime dañuy am yaakaar ci boobu régime. lu ëpp fukki junni ak juróom yu way làqu yu Mauritanie yu nekk fii ci Sénégal nag di ñu xamal ci gannaaw caméra bi bu ñu sañoon du ñu daal di dellu seen dëkk li ko war a lekk moo di ñàkk wóolu njiit yi fa nekk.